nag jamono ji maanaam Afrique war naa mën a xool nan lay fexee ba mënal boppam te nag loolee lu jot sëkk la maanaam jot na tamit ñu daal di consommer li nga xam ne moom la ñuy produire ci réew mi Tam Ndiaye mi nga xam ne moo jiite au conseil du dialogue social daat nay wax ci lu jëm ci wàllum partenariat public privé wax na tamit ci initiative bi MEDES teg lu jëm ci wàllum emploi des jeunes ak taxawaay bi MEDES am ci lu jëm ci kaw mu mi dox ci ñaar fukk ak ñetteelu assemblée générale bi kuréel gii di MEDES doon amal yéen la Soleil nee na lu jëm ci Sénégal moom boppam li muy dundee

état bu Sénégal yéen a kaay gi di réew mi ko ba de sàll maanaam arrestation yi jàpp gi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màlle biram bi daat nay wax ne ñoom li ñu njortu mooy Ousmane Sonko dañu ko bëggoon a ñi nga xam ne ñu yàppasee fa ñoom nag nee nañu danañu porte plainte ci lu jëm ci wàllum tentative d' a kaay gi di vox populi xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko jamono ji maanaam ma ngi noppi kenn dégg ko waaye Macky Sall moom ma ngi wanewu yéen a kaay gi de la point xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom ak soxna ma ñoo ngi woon ci mbedd Ndakaaru yi yi di amal doxantoom président Macky loolee sax da si porondol ngir nag weddi ñi nga xam ne ñoo doon wax ne dafa daw dem ca diwaanu Europe journal bii de Le Point nee na njiitu réew mi di président Macky Sall moo doon dawal soxna ci nekk si wet gi maanaam ñuy waxtaan ak askanu Sénégal yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Alioune daat nay wax ne yanu na lu rafet la lu baax la Ousmane Sonko ñu daal di koy jox passeport am yéen kaay gi de la sa ñi nga xam ne ñu yoppasee fa ñoom nag li ñuy sàkku Sonko rek jamono ci maanaam moo jàmmarloo ak ñëpp ndax ñi nga xam ne ñooy ay jege ñalem taxawaay bi ñu waroon a am la xam doy na yéen kaay gi délibération ne na jàngalekat yu bari yi nga xam ne jàpp nañu leen ak élèves yi loolee tax na kuréel gii di CUSEMS ak CUSEMS authentique ñoom nag bëgg nañoo andil ay yëngu-yëngu ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale me yéen kaay gi di bés bi docteur Abdourahmane Diouf na jamono ji jot na sëkk maanaam booloo jàmmarloo ak Macky Sall yéen kaay gi di Le Quotidien ñu xëy fekk fa Amadou na élection présidentielle kaay gi di Vox Populi xëy di ñu Omar Diagne teg nañu ko loxo Karim Xurum Xaq teg nañu ko loxo la ñu leen di toppee mooy appel à l'insurrection am na benn agent impôt et domaine boo xam ne jàpp nañu ko moo tax liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk impôt et domaine ñoom nag ñoo ngi dànkaafoo yéen a kaay gi de la Tribune nee na lu toll ci ñeenti téeméer ci manifestant yoo xam ne teg nañu leen loxo jamono ci responsable yu Pastef yi ñoom la ñu ciblé yéen a kaay gi nee na keroog xam ne gars yi ñoo ngi amal ay ne leen feeñal yéen kaay gi de Les Échos bi ñuy jàpp Ousmane Sonko di ko jël di ko dugal ci oto waa BIP yéen yéen kaay gi de Les Échos na keroog yi Ousmane Sonko bi ñu koy wàccee ci oto ma ak ki nga xam ne moom la ñu gis mu mel ni dafa am lu mu koy sotte journal bi nee na kookee teg nañu ko loxo ab agent AIBD la waaye nag bi ñu ko laajee nee na Ousmane mooy leader ma da ko doon gunge tribunal waaye nag ba mu gisee ne dóor nañu Ousmane Sonko ay grenade lacrymogène la jël kaala gi moom la yoroona def ko koy jox ngir gis bët yi di jooy yéenekaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naa ñu Tyson 2 ak caatu Yoff ñoom ñoo doon bëree dimanche bi nga xam ne moom la ñu génn waaye journal bi nee na Tyson 2 daf ko pesé bëri nañu lu toll ci juróomi minute yu fegg ñeen fukk ak juróom-ñeenti seconde